nataal fukk ak juróom amoon na xarit yu bare ñu bari wóolu nañ ko ba di ko topp waaye amoon na tamit ay noon yu bare nit ñu bare ñu ko bëggul woon dañ doon xaar waxtu bu baax bi ba def ci moom lu bon benn bés ay noonam teg nañ ko loxo ba teg ko dee waaye yeesu xëccoowul ak ñoom ni mu nekkee yàlla yéesu xamoon na bu njàgg ne ñu bon ñi dinañ ko def lu bon xamoon na ne sax dinañ ko rey ndaxte yéesu xamoon na ne dina ñëw ci kaw suuf to dee ngir bàkkaarkat yépp yéesu moo doon musalkat bi yàlla digoon aadama ak awa ak askanam wépp ci seen ñàkk xam noonu yéesu yi def nañ lépp ci moom te ñu bindoon ko ci bu njëkk bi ñu jàppee yéesu lépp luy bon teg nañ ko ci kawam tufli nañu ko ci xar kanamam dóor nañ ko ay pes dóor nañu ko ay yar teg ci bopp bi galaku dëkk ci loolu lépp yéesu waxul dara ci mettit yooyu yépp mu ngi doon muñ moom jéemuta xeexal boppam walla muy feyul boppam te ci loolu yépp gisoon nañu nu yéesu teeyoon ci loolu yépp ay noonam gën koo mere ñu daan ko dee